asalaamaaleykum mbokki askan sunu gaal man seen xarit seen mbokk Fall Damel maa ngi leen di nuyu bu baax a baax rawatina mbokki amee internet yi maa ngi leen di bëgg di leen jox seen wàccuwaay di leen kontaane bu baax baax baax di am mbégte ak contentement di kàtt ak yéen ci euh, bile émission di wóo ci turu fi xew ah li fi xew nag bi yoon doy na waar doy na waar euh, yéeme na lool lool lool lool lool vraiment suñ temu tey bi nekk na lu doy waar niñ koy faral di waxee rek euh, ni tungi ne ni nataal du ñu def leen lu dul bàyyi leen yéen askan gaal yéen amee internet ngeen déglu nga xam ne mooy élément bi bu ko defee ñu daal di wéyale. mbokk askan bi man de dama amoon problème bu mu diis lool mu diis ko partager ak yéen ngeen wax ma ci seen xalaat parce que jaaxal na ma lool ba fa jaaxal yam problème bi nag nii la fa demee dama am nu jëkkër man moom dund nañ six ans mooy juróom benn at mariage def nañ ko. manqué ma dara macha allah bëgg naa ko bëgg na ma def na ma comme reen musuma dóor musuma xas yenn yenn yoo xamante ne affaire yu ñaawteef la daal mosuma ko musuma koo def wax dëgg fa ne yàlla bëgg na ma suturaal na ma man tamit bëgg naa ko suturaal naa ko mais benn problème moo ci am sama jëkkër moom dafa hystérique mooy mënta am doom seet nañ lu ne mu faju mais yàlla daal antulu ko mais tawul ñu ngi continuer maa ngi koy muñal bien vrai que bëgg naa am doom trop mais maa ngi koy muñal di say te yàlla tax moom tamit mi ngi continuer di def lu ko war ci man yàlla dogal ñu dem ba ci biir nag liggéeyam liggéeyam daal dem ba am feneen fu ko yóbbu daal mu dem dem voyage juste pour quelques mois parce que loolu yëpp ci cadre liggéeyam la bokk léegi bam mu demee voyage vu que man rek man ak moom ñoo nekkoon ci kër gi léegi moom dem na voyage ma est-ce que duma dem wooy sama cousin mu ñëw fii ci kër gi di ma wettali noonu rek après ci laa woowee sama cousin bi mu ñëw dëkk ak man maa ngi ko hébergé woon noonu si néegu gan def na fi presque deux mois man ak moom kese ci kër gi chaque jour ma koy yóbbul reer di ko yóbbul añ lépp lu ma togg daal ma yóbbul ko ko benn bis nag yàlla dogal ma di ko yóbbul reer fekk ko ci fekk ko daal ma simmeeku doon préparé pour dem sangu ji xam nga rek tamit seytaane dafa bari doole instant boobu namm naa sama jëkkër sama jëkkër sori na ma ba ma ko gisee daal sama xel nekkoon na ci moom trop sega man ak moom rek a fa seytaane tamit daal di ñuy jey si lañ la ko loowee ñu dem ba yëfi nag ëpp ñu doole sëtët tët tët kon askanu sunu gaal ak li ko wër ñoo ko déggandoo mi ngi noonu noonu mu demee ni ko xale bu jigéen bi waxee doy na waar trop waaw li nga xam ne nag moom moo des ci ci ci ci élément bi euh, mbokki am internet yi ñu ngi koy euh, taataane ci jeexantalu sunu émission euh, dinañ xam li nga xam ni moom moo des ci élément bi réaction xale bu jigéen bi ak lan lay ñuy laaj ñun am internet yi mais daal lii doy na waar trop waaw mi ngi ko waxee noonu nee na ma nekkal ko ca ñu daal di lëkkaloo ñoom ñaar seet nit bàyyi la fi jël la mettre la dans de très bonnes conditions di def ci yow li war yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp bàyyi la ci Sénégal génn dem ah le temps que muy ñëw nga def jëf ju ñaaw ji ak ana lan mooy ndey baayam ngay wut ko la wéttali di dem di wut ay cousin ana sa mag bu góor boo ko amee c'est ana say rakk yu jigéen say mbokk yu jigéen ana nga dem sa kër yaay toog fa ba sa jëkkër ñibbisi nga continuer ak moom nekk ak moom mais quand même lii lii metti na trop vraiment comme ni ma ko waxee sànq rek sa jëkkër bu la wanee ginnaaw nga ragal ci kër ga demal sa kër yaay nga nekk fa wala nga dem sa benn kër tante nekk fa ba keroog muy ñëw ko xamante ne sa cousin la teg nit ñi xam nañ li ñu wax ci diggante doomu ndijaay doomu bàjjan ah, diggante boobu yebante dafay am diggante boobu am na ñu ci bëri sax ñoo xamante ni buñ nekkee ay xale dañuy seq ay relation seen biir maanaam ñoom dañ ciy tooñante di xamalante ni ay doomi nijaay doomi bàjjan la et tout ça loolu yëpp da ciy am ce qui veut dire que ni wóorul daal wóorul safara ak caas la heure bu ñu jigéentee rek lu ne mën na cee góor ak jigéen safara ak caas la comme ni ma ko waxee rawatina koo xamante ni nee naa la sa doomu nijaay sa doomu bàjjan c'est pas sûr. bala ma ci sori du ma def lenn lu dul bàyyi Kaja mu wax ci premier partie bi euh, Khadija bu waxee ci première partie bi ba noppi. waaye itam euh, ci boobu le premier partie dinañ ci déglu bu baax a baax ki nga xam ne mooy oustaz Diaw. salaamaaleykum maa ngi am di jàkkaarloo ak yéen ci plateau bi euh, di jéguma lu fal damel maa ngi lay ziar imaam oustaz maa ngi lay jox sa yéeguwaay bu baax euh, nga àndeeti thème bu am solo waaye it bu doy waar toujours rek sama mbokku jigéen ñi man nag damay laaj jigéen joo xamante ni vraiment manqué woo dara sa jëkkër lay toppatoo. ana lan ngay dem ba mu lay jaral ah, ngay dem di njaaloo man daal euh, dije dama dama waaru sama mbokk jigéen yi tey waaw yenn xaw ma bëgg góor la xaw ma ñàkk patience xaw ma def lu la neex la. yàlla mooy may doom doom fu ko yàlla tudd dana ñëw ci barke Seydina Muhammad. góor gu stérile moom yoomul de yaakaar naa ni yoom ak stérile am na différence mi ngi yëg boppam mi ngi kàttanam mi ngi lay jox plaisir macha allah lii problème bi rekk mooy dafa mënta am doom dëgg la si biir wax nee na def na lépp pour que jëkkëram mën a euh, wér waaye yàlla tuddagu ko waaye ñoddi bu daggul dikk ana muñ jigéen bu ñu lay muur ngay dem séyi dañ lay yàpp lan moo tax ñu ñuy yàpp pour ñu muñ jigéen dafay yelloo muñ wante xale yi léegi yi amatuñu patience seen sëy man damay wax toujours sëy su ma demee ba bëggatuma ci gis naa ci lu ma ci naqari bëgguma ci bëggatuma ci nekk balaa may dem di njaaloo damay tas tas nag neexul te doone kenn tasal waaye dafa am loo xamante ni si si si si nit da ngay ëllëg da ngay sédd say doomi ëllëg c'est important xale yu jigéen yi nañu delloo si waat seen xel te bàyyi di dox ci li leen neex wala bu ñu defee suñuy bêtise ba pare naan tayuma ko wala di wut ndimbal man d'accorduma boo demee ba nga xamante ni mënatuloo muñal sa jëkkër mais tasal sëy bi au moins sax nga dem def la la neex mais njaaloo mu nekk way boo xamante ni du fay ba illaay yow mi diini kooku yàlla nañ ci yàlla musal sa jëkkër boo ma ne woon sax sama jëkkër faalewu ma sama jëkkër lijjantiwu ma boobu sax mën nañu xaw a comprendre mais sama jëkkër mi ngi may toppatoo lii problème bi mooy dafa stérile tegu ko boppam suñu borom moo ko teg te suñu borom bu ko namee génne dindi dina ko dindi ngeen am doom nañu muñ encore une fois nañu dellu di muñ encore une fois c'est important. Euh, nañu muñ nañu dellu di muñ encore une fois di ay kàddu yi ki nga xam ne mooy Khadija bu ko defee ñu daal di ci déglu ki nga xam ne mooy Oustaz Diaw moom itam ay kàddoom ci premier parti bi laata ak ñuy indi euh, ñaareel bi partie. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah, sunu mbokk internet yi ñu dellu si waat rek comme ni ngeen ko déggee macha allah kii di Gumalo wax ko. Ah, ak soxna Kadja Kadja nuyu naa la bu baax namm naa la macha allah yaa ngi ci jàmm ziar naa la guma la ziar na la bu baax a baax a baax yow tam ci ni ngay présenté émission bi mu doon émission bu am solo bu riche bu jaar yoon tabarakallah ñu koy rafetlu ñu koy déglu tam kontaan ci lool mu doon thème boo xamante ni thème bu doy waar la thème bu yéeme thème boo xamante ni macha allah eh, saa su nekk rek ñun liñ ci mën a wax Kadja li ma ci mën a wax gumalo mënul dul rek wax ci ci lislaam wax lislaam dafa sévère ci diggante sëy lislaam da cee sévère te lislaam du ci dawal compréhension wu xool ni ki jëkkëram daa tukki nekku fi du xool ni jëkkëram amut ak moom doom côté boobu yëpp chariatul islam buy xool du xool limuy jàpp mooy ndaw si daa nekk ci buumu jàmbur cousin am ak cousine ku mu mën a doon mu fekk si ko moom li mu war a def mooy maanu jigéen bu nekk ci biir néegu sëy da maanu sëy du par force da nga cee war a am doom déedéet du farata mu nga cee war a euh, jërëjëf Oustaz Diaw ci li nga xam ne mooy euh, waxtaan bu am solo bi ngeen def euh, xam naa ni lii moom képp koo xamante ni dégg na ko rek te doon jëf jëf ju ni mel tey ji bu leen dégloo dina dellusiwaat bu baax a baax a baax. mais wax dëgg yàlla mbir mi doy na waar yéeme na aussi tellement que mooy loolu xale bu jigéen bi tamit doy na waar lool lool mais ku góor ki tamit wax dëgg yàlla moom itam doy na waar lool du ñu def leen rek lu dul bàyyi askan sunu gaal ñu daal di déglu li nga xam ne mooy deuxième élément bi. ñu dem ba yëfi nag ëpp ñu doole à chaque fois ñu nekk di ko def di ko def di ko def ba nag malheureusement ma jëlee si ëmb. Hmm, weer bi ma xamee ni ëmb naa juste rek sama jëkkër si la ñibbisee voyage te bëgg naa sama jëkkër bëgg boo xamante ne am naa gàccee ko dama ëmb tegal ko si ni sama cousin moo ma ëmbal man daal question bu ma doon bu question bu ma doon posé daal mooy ndax ma wax sama jëkkër ni dama ëmb ñàkk sama jëkkër wala ma avorté ñàkk sama doom te wax dëgg fa neex yàlla bëgg naa am doom trop parce que sëy na juróom benn am doom ak moom te tamit man a mun lu ñu na for boo xamante ne am naa kersa wax ko ni dama ëmb ma si doon was ma seen xalaat ngeen dimbali ma si te tax parce que affaire ñoo ko déggandoo noonu mu ko waxee noonu la demee gis nga ba li nga xam ne mooy ëmb fekk ko ca te léegi xamatul naka lay def euh, ci diggante bi nga xam ne moo dox ci moom ak euh, jëkkëram ak ki nga xam ne mooy cousin ndax ndaw si nee na bëggul ñàkk li nga xam ni mooy doom ah ndaw si nee na bëggul ñàkk doomam parce que toog na six ans mënul am doom waaye itam ah, bëggul ñàkk li nga xam ni mooy jëkkëram ndax euh, biir na ko ni jëkkër ji bëgg na ko bëggeel boo xamante ni bu xame ni moom mi ki di xale bu jigéen bi ëmb na mën ñàkk jëkkëram li nga xam ne mooy laaj bi mu koy laaj askan sunu gaal am internet yi ku ci nekk ci yéen man nga ci participer ni ngay participer du leen rek lu dul daal di ci euh, def li nga xam ne mooy sa commentaire euh, boo defee sa commentaire rek ñu euh, gis li nga xam ne moom nga participer mais nag doy na waat trop doy na waat trop man sama xelu bopp ah li nga xamante ni moom moo ma yem mooy xaw ma ndax dafa war a avorter wara déet parce que avorter nekkul loo xamante ni lu baax la puisque nga avorter boo ko defee rek automatiquement daal di ngay li nga xamante ni euh, mooy euh, sa sa doom bu ko defee dina ñàkk doomam te itam dina euh, faat bakkan te loolu wax dëgg yàlla yàlla àndu ci loolu wax dëgg yàlla doon na loo xamante ni lu lu lu yéeme la mën na ci sax dugg li nga xam ne mooy kaso kon avorter daal foog naa ne du la meilleure solution boppam mooy ñaaw moom nag di laaj askanu sunu gaal comme ni ma ko waxee woon sànq mais du ma def leen lu dul bàyyi Kaja mu indi li nga xam ne mooy xalaatam ci deuxième partie bi soxna Kaja. te man li ma ci gën a metti mooy sa jëkkër tukki ñaari weer kese kese kese ñaari weer munoo koo muñal sa jëkkër ñaari weer kese weer ak moroom nga xam nu mu gàttee mu jaral la nga dem wuti sa cousin waa léegi moom lu tax mënul woon a dem jëli cousinam wala xaritam sax wala sëram waaye nga dem fekk sa cousin góor gu ne léegi mel nu mu war a mel nga andi ko ci kër gi yéen ñaar kese ngeen nekk ci biir kër gi kooku lu ko fa dal moom xale bu jigéen bi moo ko teg boppam ku góor ki aw ma lenn lu ma koy balaame ndax góor moom góor la mën a doon moom góor lu ko yomb lu ne mu dem ci ba jeex tàkk waaye xale bu jigéen bi bi def ay plaawam ba lii am moom lay balaame duma ci ànd ak moom benn yoon jigéen bu dul dara sax am na fooy toll ci sëy dangay suuraale say njaboot ëllëg même même ci tàng taaj bi bu la ko suñu boroom mayul ñaan nga yàlla bés suñu doom suñu boroom may la ko kon war nga liggéeyal say doom lu rafet loo xamante ne ëllëg nañ siggi mais sama jëkkër dafa stérile yàgg nañ fi gis nit ñi stérile yàlla dimbali leen ñuy sëy ay vingt ans yàlla dimbali leen bañ am doom doom bu heure bu ko yàlla tudd ak fu mu ko tudd dafay am mais na rafet daanelee na nag nee na ëmb na ah xale bi de ba muy juddu ba muy ba mu koy ëmb tàggoowu la ñëw nit nag kenn du ko ne tasal kenn du ko ne rayal sa doom kenn du ko ne avorter li ma koy xelal mooy lii am am na. nawoo jëkkëram waxtaan ak moom man moom toujours damay wax ni base relation ak lu mu mënti doon waxtaan la day positif wala mu négatif na woo jëkkëram waxtaan ak moom expliquer ko nu mu demee. bu ko koy accepter mu accepter ko ko su ko dul accepter mu may ko baatam te mu dem toog ak doomam ba yàlla may ko boppam mu xam nu muy def wayla la budul fay nag waaye moo ko teg boppam lu lu waay rendi ki sa loxo lay naaj. sama mbokku jigéen ñi nañu dellu delloo si waat seen xel te bàyyi bëgg góor bàyyi bàyyi bàyyi mën di seet di muñ muñ dafa am solo nag fii kuñ ci kuñ ciy muur boo toogee loolu lañ lay wax muñal waaw sëy bu neexoon duñ ne kenn muñal bu neexoon duñu ne kenn muñal faw nga muñ pour mën cee am lu barkeel ëllëg nit sëy na ba deete amul doom nit a ngi toog ci ruqam bëgg doom yàgg la ci sëy te amul ah, mu ngi muñ njaaloowul def dara man daal li may metti mooy njaaloo bi waaw nañu nañu delloosiwaat xel yi te xam ni àdduna bi ñu nekk nii dara jaratu fi def lu ñaaw wala wax lu ñaaw wala jëf lu ñaaw waaw maa ngi yëgaluwaat lu ci dëng ñoo xam ni man la lu ci jub nag ñu xam ni suñu borom la salaamaaleykum. Euh, jërëjëf euh, soxna Khadija dara jaru fi li nga xam ne mooy njàlloo ba tax na kon ba tey ci euh, deuxième partie bi duñ def leen lu dul déglu ci oustaz jaw lii nag gumalu dafa doy waar dafa doon loo xamante ni actualité la doon loo xamante ni dafa bari lu muy am fi mu toll nii moo tax ñi nga xamante ni waxuma la rek sax dem bitim réew bàyyi seeni soxna fii mais Ndakaaru Njaay gi rek boo fi nekkee. bàyyi sa soxna dem liggéey sa xel du dal sa xel du teey li ko indi mooy jigéen ñi dañoo xamatul seen valeur dañoo xamatul seen valeur xamatuñu li ñuy jar dañoo dem ba seen valeur rëcc leen wala ñu ñàkk ko complètement dañu ko ñàkk complètement dañ ko ñàkk completement te loolu nag dafa jar di sóor lislaam nag dafa wax ni wa min sifatil muslima an yastara awrata zaariya wal batiniya suma takunul muqtada fil mujtama jigéen dafa war a wattu boppam wattu jëmmam wattu cëram wattu wattu ko physiquement ba yenn détails du ci sax dugg wala yenn détails yi du ci sax melew mais lii ñaaw na torop ñaaw na trop xale bu jigéen bi lu mu def noonu bu mu sàkku yërmande de man yëruma ko de dama gis ni dafa desee sangee boppam tëj boppam dafa desee téye boppam waaw parce que dafa dafa mel ni kon xelam dañ ko fel rek kan ma ko fel cousin ab cousin am mu ci biir kër gi moom mooy incarné ni moom jabaru jàmbur la mooy incarné dignité mooy incarné fulla mooy incarné fayda ba tey leeralul boo seetee ci biir wax ji ñu jékki-jékki rek lëkkaloo ci ban fànn fekk na ko mu mel naka sudul noonu kon moom moo aat si ci déggin kon moom moo attaqué moom moo songu cousin bi loolu nag doon loo xamante ni dëgg dëggumaloo a ah Kaja ah, yéen jigéen ñi defati ngeen de bii paa moom dama naan defati ngeen rek parce que nag ah, du lii moom doon lu rafet du lu yàlla gërëm de mais du lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm diine daal mere na xale bu jigéen bi lool lool lool lool lool. ah mere na ko lool lool lool lool donte la amuñu doom côté doom bi doom alalu yàlla la doom yàllaa koy maye waaw yàlla rek moom moo xam lu lu nekk ci biiru jigéen waaw wa yaalamu ma fil arham moom rek moo xam moom lan la jigéen ëmb ku mu bind sa jën yi da am doom tôt ou tard koy am waaye nag foofu moom dëgg-dëgg soxna si donte jaaxle na ba laajte. waaye nag njuumte yeeg lépp ci kawam lay dal xale bi nag deful kenn dara na ko bàyyi mu juddu xale bi na ko bàyyi mu juddu bu ko reyee bàkkaar day gën a yokku rek waaw bu ko bàyyee mu juddu nag mu xool position am nag moo jëkkëram nan lay def su ko jëkkëram teewee mu xam ni sansam la su ko jëkkëram teewul mu xam ni moom moo deful lu ko diina sant ba li ko dal dal ko waaye bi gën a ñaawat itam mooy mu bàyyi jëkkëram ci biir comme ni ko ñu bari def bari na ñoo xam ne jàpp nañu ñoo jur seeni doom fekk juruñu ko mu ngi noonu daal kàddu gaa ngi noonu daal daal gumalu man affaire bi sax daf ma dépassé macha allah macha allah oustaz jow ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm waaye itam di la jaajëfal bu baax di kontaan ci yow di kontaan ci soxna Hadija euh, mbokki askanu sunu gaal yéen ko déggandoo mi ngi noonu noonu la demee euh, képp koo xamante ne rek euh, dégg nga li nga xam ne mooy waxtaan bi di émission bi di émission li fi xew bu la neexee mën nga ci participer doo def leen lu dul def sa commentaire conseil li nga xam ni moom mooy xale bu jigéen bi ndax soxla na ko lool lool lool lool lool seen mbokk seen xarit Fall Damel feggo ko ci ak ki nga xam ne mooy Oustaz Diaw ak soxna Khadija ci bile émission di wuyoo ci turu li fi xew ñu ngi leen di jox dig daje ba ay bés jaageen ci ëf